أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey nu toll ci suratu nisa ñuy maida maida ñuy jël tey aaya 3 mu nekk benn aaya bu nu son borom subhanahu wa taala di jàngal juróom ñaari mbir bu ci njëkk mooy xurmatul mayit wa ma zukira maaha wa hiya ish ashara min almuharramat dana jàng tey araam bi nga xam ne araam na ko mid ak lépp loo xam ne aju na ci ànd ak médd lépp luy médd mbokk yi ci islaam dafa xaraam bam des lu teg su ñëw génne ko ci daan ne lii dagan na ci yéen lu dul loolu nanu xam ne lu mu mën a doon ci lu ñu war a lekk su fekkee dafa médd te teg si génne wuñ ko ci loolu dafa araam amuñu droit lekk ko mu ne danañ fekk ci aaya yi ñuy jàng tey fukki mbir yoo xamante ne amuñu droit jege ko fukki mbir yoo xam ne islaam daf ko araamal santunu ñu sori ko ci lislaam lépp luñ ne araam na yow jullit bi lan nga ci war a dégg mooy lii dañ ma koo tere naa ko daw ba keroog may tarxiis wala may fàtte wala may juum di ko def waaye feeg maa ngi ak sama sago feeg maa ngi ak sama xel feeg maa ngi ànd ak sama tey bakkan awma droit def lii nga xam ne dañ ma koo tere ñaareel bi mooy xurmatul istiqsaami bil azlam wa mislaha qaraatul anbiya wa xutuuti raml wal kahana wa ma asbahu zalik mbir yi ñuy waxaat tamit dafa bokk ci li alquran di tere dafa bokk ci li sharia araamal mooy pion yi ñuy samp loolu dafa araama moo xam yoote la moo xam ci wàllu carte la moo xam ci wàllu gisaane la yi ñuy samp dañu koo tere pax yooyu ñuy def di ci def turu yonent yi wala téere yooyu nga xam ne moom lañ xewal léegi soo ñëwee ci benn gisaanekat wala benn seetkat mu ne la man kat li may seete dagan na gis nga téere laa yore daal lay jox turu yonent yi ne la gëmmal nga gëmm mu ne tegal sa baaraam benn nga teg mu nekk Moussa wala mu nekk diw ñu ne ah léegi nag koo ci teg turam rek day ubbi mbirum Moussa ma nga fa su ko defee mu commencé di la wax. so koo teg rek bu tegee ci Ibrahima mu commencé di la wax am na lu ñu ne Ibrahima lii la Moussa lii la Muhammad lii la Yusuf lii la loolu benn daganu ci loolu yëpp du diine ndax diine gisaane amu ci diine seet amu ci diine tegi bant wala tibb suuf wala ay xaaw loolu amu ci lépp loo xam ne dagan na ko ci wàllu lu ñu war a def nangam rek islaam yonent bi dina la wax wala yàlla dina la wax mbokk yi. loolu bokk na tey ci li ñuy jàng ak yooyu ñuy def ci suuf si wala wëñ yi ñuy takk wala bu xaaba yi ñuy def mu ne na ngeen xam ne ak yu nuroog yooyu mu ne na ngeen xam ne yooyu yépp dafa araam benn daganu ci waaye dinañ jàng tey encore xurmatu zabt alal qubuur rendil bàmmeel yi rendil ñu dee ñi nga am ku dee mooy li ñuy def nii ah saraxu ñetti fan il faut ñu jënd nag rendi ko loolu dafa haram saraxu juróom-ñetti fan saraxu ñeent fukki guddi waaw yooyu ñuy rendi di ko rendil bàmmeel yi di ko rendil néew yi loolu dafa araam te tey lu ëpp fii ci ñun moom la ñuy def rendil bàmmeel yi loolu dafa araam mbokk yi mu ne yooyu yëpp dafa bokk ci bokkaale mu ne encore lépp loo xam ne dañ koo rendi te rendi luñ ko ngir yàlla daaraam lépp lu nu rendi rendi wuñ ko ngir yàlla yëg leen ne loolu wa hiya min ashirki loolu ci bokkaale la bokk ñeenteel jawaazu aklu ma adrakahu muslim hayyan min alxayawaanaat dagan na jullit lekk loo xam ne daf koo dab ci yi ñu war a rendi mu war a dee nga dab ko rendi ko fekk deewagul xar mu oto mbëkk xar mi dali fële di fittaxu ñu ne daw leen indi paaka ñu daw indi paaka rendi ko ci fittaxu bi muy fittaxu dagan na mun nañ koo lekk waaye bu ñu bàyyee ba mu fittaxu ba sedd guy ñu ñëw yëngal yënguwul ñu ne rendi leen ko ku ko lekk lekk nga médd lépp loo xam ne dab nañ ko nag muy waaj a dee ñu dab ko rendi ko fekk seddul su boobaa dagan nañu lekk ko loolu araamul ci ñun waaye bu ñu xaaylee ba mbir mi ñu naan est-ce que li ah moom est-ce que mu ngi yëngu xool ko bu baax est-ce que li mu ngi noyyi su boobaa bàyyi leen ko noonu parce que kat wóor a tut waaye ba tey yooyu ñu la wax nii ne dagan na nga lekk ko dagan na bu fekkee dab nga ko ci dundam muy waaj a sedd seddagul nga rey ko na fekk mu bokk ci rabu àll yi nga xam ne dañ koy dafa dagan dañ koy lekk waaw moo xam dañ ko jam moo xam dafa damm wala dafa am lenn lu mel noonu muy dem bay waaj a dee wala dañ ko mbëkk wala nangam ak nangam muy waaj a dee ngeen dab ko daal di koy rendi su boobaa mun ngeen ko lekk bu fekkee dafa bokk ci rab yi nga xam ne dagan na juróomeel mooy wujubu xasiyatillahi taala wa xurmati xasiyatul kuffaar mbokk yi dafa war ci ñun ñu ragal yàlla waaye ñu bañ a ragal yéeféer yi xam ngeen ne tey bokk na ci li ñu indil problème mooy ñeme yàlla ragal nit ñi waxuma sax nit ñi waaye ragal yéeféer yi waaw ñeme yàlla ñeme yàlla goo xamante ne foo ko takk wees na ko waaye ragal ay nit suñuy moroom ragal ay nit waaw léeg-léeg nga dégg rek ndeysaan ci misaal booy wax ñu ne doole américain nga ni américain yi fii ku leen di sóoru xamoo sa bopp waa Israël ku leen di sóoru xamoo sa bopp nangam ak nangam kërti kërti ñooñu yàllaa leen ëpp doole ku ànd ak yàlla yow doo xool ay arme mbokk yi diggante Moussa ak Firawna kan moo poon armu ah kan moo poon mbooloo koo poon kàttan koo poon moyen ku daan kon mbir mi doole diggante Ibrahim ak Namrud koo poon mbooloo koo poon doole koo poon kàttan koo poon pexe ku daan kon mbir mi du doole du kàttan du ay pexe du ay arme du ay nit du ay soldaar mbirum mbirum yàlla la jullit foofu la war a xoolee dañoo xool ay nangam ak nangam ak ay ay ay ay ay yoo xam ne yëpp mbirum àdduna la waaw yàlla yàlla subhaanahu wa taala mooy mooy moom moom àddunaam du ko neex mu dogal ko juróom benneel hurmatul ibda fi diin wa hurmatu tashri al munafi li sharci l islami dafa araam sos ci diine sos jël ay mbir capp-cappal ko rafetal ko dugal ko ci diine ji tey li garaaw mooy ñun li ñu sos ci diine moom la ñu xiirtal nit ñi waaye li yàlla ak ay ba yonentam indi fan lañ ko sànni di nga gis benn kilifa gu indi dara ci diine mbir moomu lay bëgg ay nitam def li yàlla ak yonent bi bëgg loolu du ci soññ nit ñi waaye moom mbiram mi tey soññ taalibe yi soññ nit ñi ba lool rek la nit ñi xam dañuy yaakaar ne loolu moom mooy diine ji te sos ci diine dafa araam yàlla daf ñu ko tere ci alxuraan tere ñu ko ci sunna jullit du sos jullit day topp waaye du sos ngay topp waaye doo sos bi ñu commencé di sos ci diine ji ba léegi nag ci la diine ji am problème ndax nit ñi li ñu sos lañ topp bàyyi li diine ji indi nit ñi li ñu sos lañ bëgg bàyyi li diine ji indi nit ñi li ñu sos lañ miin bàyyi li diine ji indi képp koo xam ne da ngaa topp yàlla te toppewoo ko lu dul lu ñu sos yàlla du ko nangu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd wa fi riwaya man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu mu ngoog kon jullit du sos fi diin wa hurmatu tashri al munafi li shari dafa araam ci jullit ñi ñuy sos sharia bu wuuteeg sharia beneen burul islam sos ci diine dugal ko ci boole ko ci sharia bi ba mu muur li sharia indi woon loolu dafa araam te tey loolu mooy li am daanaka da ngay wax julli ñu ne non ah julli de ah julli de gars yi dañuy julli nii rek mais julli de daanaka sax amul solo la ilaha illallah waaye gars yi bu julli amul solo luy am solo nga ne màkk ah màkk da jarta dem gis nga fii fii boo fi yemee daanaka egg nga fii rek fii fan fan ah fii fii fii gars yi de loolu la ñuy wax man nag fii laa wax fii yéen a yéen ay xam fan la fii waaw loolu garaaw na de yàlla ne walillahi ala nnas hijjul bayt man istata ilayhi sabil ah ñëw leen ngeen ñu ne la jar sa dem jàng alxuraan nga de ah bi nga boo tàmmoon di yow fajar boo jullee ba pare ba nga jël nangam yée kon dootoo laal alxuraan inna lillahi wa inna ilayhi noo am na ci dëkk bi nit ñi ñeme ñoo xam ne ah li ñuy wax man léeg-léeg ma nekk benn rajo déglu rek damay gaaw daw parce que li ñuy wax man ñe sama xol bi ak sama fit bi ñeme woo ko penalty yoo xam ne non të të të të të yu garaaw quoi la gars yi def ci diine bi loolu ba musiba la de kan muy encouragé jullit bul jàng alxuraan di jaa encouragé jullit bul julli di encouragé jullit bul bul bul dund sunna di ko jox leneen xoolal léegi léegi wallahi ci waxtaan bi ma jógee nii moo tax ma tardé benn xale bu jigéen bu doon romb rek ñëw ne ma maa ngi jégul de maa gis mbooloo mi gars yi di waxtaan rek ci benn waxtaan sax laa jógee mais ma ñëwaat fii ma ne du doy ma ñëw toog mu ne mais yow li ngay wax nii ak kee lu muy wax ça fait deux kee nee na jigéen buy jaamu yàlla lu bari du am jëkkër ma ne ko ah mu ne ah fa ma jógee de loolu laa dégg mais yow li ngay wax nii ak kee li muy wax ça fait deux xanaa li ngeen di wax du benn islam fan lañ jàng jigéen buy jaamu yàlla du am jëkkër fan lañ ko jàng léegi ndaw soosu bu nekkee benn nopp su nekkee benn nopp su fekkee amul xel su fekkee xamul su fekkee amul encadrement bu baax ba laaj comme ni mu ko laajee nii su tey su ko yàlla nattaloon mu jóge foofu rek dem ñibbi nu muy def ci jaamu yàlla bu ko neexee mu julli da nee di julli bu ko neexee mu def lu baax bu ko neexee ndax lan ndax nee nañ ko lu voilà te Sénégal loolu mooy seen pas-pas ah Sénégal seen pas-pas mooy ku sell da ngay dee wala li ngay am doo ko jot loolu mooy seen pas-pas boo nekkee xale léegi di dem jàkk nga dee ah kii xamoon nañ ne day dee moo ko tey xamoon nañ ko waaye yow kii day julli normal chaque jour mu ngi ci jàkka ji kii xamoon nañ ne day dee xamoon na waaye moo yow yàlla ñu baax ñi la bëgg wala yàlla ñu baax ñi la bëgg yooyu lañ lay may subhanallah boo nekkee jigéen di muuru nii gi ñu ne i non ay leen ko fi boo gaaw a sëy de lu tax li ngay muuru nii ne man lañ nii comme ça yooyu la ñuy maye yooyu la ñuy wax nit ñi moo tax dëkk bi du mun dem parce que jaamu yàlla ci boppam la nit ñi bañ bëgguñu sax ku koy wax bëgguñu sax ku ci orienté jullit yi ay caaxaan ay yooyu gars yi naan na xummute dagan sabar yeeg yëpp di yuuxu laay laay la laa bi di ànd ak pooj yi yooyu de lañ gëm moo tax ñu am problème gis nga sariya yàlla bii képp ku ci dugal lu ci bokk wallahi ëllëg di nga am jafe-jafe yaak borom bi yàlla nag ku mun a muñ la moo tax mu tudd as-sabir te yàkkamtiwul juróom-ñaareel jawaazu aklil mayyit lekk medd dagan na waaye fan lil muttar ci ku loru ku loru amoo loo lekk nga gis mid islaam daganal na la nga lekk ci mid bi dafa ñor ñorul mën nga cee lekk dafa ñor ñorul boo ko seexluwul daggal ci pooj bi lekk ba suur nga yenu du yóbbaale bis boo demee ba seen dëkk bi nga teg te juwal ca dëkk ba nag uti lu baax loo lekk mu ngoog ci jamonoy lor nag lañu wax jamonoy loru aywa fa man xaafa ala nafsi alxilaak képp koo xam ne ragal nga ci su bopp alkande man de bu ma lekkul damay dee egg nga foofu bu ma naanul lii damay dee bu ma lekkul damay dee lii moo lay wan ne lislaam du diine bu jafe moo tax yàlla mu ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra maa jaala aleykum fi diini min haraj diine ji defuma ci lu leen di sonal inna haza diin yusr yonent bi nee na diine bi sax dafa yomb diine bi jafewul saa yoo déggee nit ne lislaam dafa metti wala diine bi dafa metti wala nangam nangam comprendre lul waaye diine yomb diine dafa yomb ndax lépp lu yomb la la indil lépp lu baax la la indil amoo loo lekk ñu ne la lekkal miid munoo taxaw def jaamu yàlla bi ñu ne la toogal munatoo koo def ñu ne la tëddal def ko jeex na da ngay tukki ñu ne la bul woor ñu ne la wàññil julli gi jeex na kon kay li yomb na ah jigéen ju ëmb sax ragal doom ji wala ñu ragal bakkanam ak moom doom ji ñu ne ko bul woor wala sax ñu ragal liir bi ñu ne ko bul woor wala sax muy nàmpal ñu ne ko bul woor gis nga kon fan la problème nekk fan amul fenn ci jaamu yàlla yi fu la yàlla ne gis nga yor mbol dem ne la gis nga dund def dee def dégg nga li ma la wax amul fenn ci diine bi amu ci fal force amu ci déedéet amu ci diine bi mu mbokk yi ah waa ci bidaa moom booy dee sax da nga koy def waaw da ngay gis benn waaye ne dund dem dee dem gis nga fiñ la daga fiñ la daganal nga lekk médd wala nga naan lu mel noonu mooy ala charte an laa yakuna qasidan al maasiya maa ilan ilal ismi fexeel rek charte bi mooy bul nekk kuy mooy yàlla maa ngi koy lekk ngir mooy yàlla abadan maa ngi koy lekk ngir am bàkkaar abadan mooy ci jamono lor lañ la wax lor fekkee da ngaa loru ba mu leer ne loru nga buggoo bàkkaar buggoo mooy yàlla bi nga koy def sax ñàkk fexee tax su boobaa day sharia islaam dina la nangul lii ngay def kon mbokk yi juróom-ñaari mbir yi mooy li ñuy jëlee tey ci sunu aaya yi aaya bi nekk sunu kanam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والمتردية والنتيحة وما أكل الصبع إلا ما زكيتم وما زبه على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذي يئس الذين كفروا من دينكم من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف للإسلام فإن الله غفور رحيم سن بروم ني حرمت لان موي حرمت موي ارامال ناني aleykum ci yéen almaytatu médd lan mooy médd mooy lépp loo xam ne ci bàyyi ma la li ngeen di lekk loo xamante ne da ngeen koo fekk mu faatu da ngeen koo fekk dundatul mu ñàkk bakkanam loolu ngeen fekk kenn rendiw ko ni ko sariya waxee da ngeen koo fekk mu dee dafa médd araam na ci yéen jullit ñi bu dee xar bu dee nag bu dee béy lu mu mun a nekk ci lépp loo xam ne dañ koy lekk araam na ci yéen ngeen jëfandikoo ko ngeen lekk loolu mooy médd ah lépp loo xam ne ci jur yi la ci njanaaw wala ci jur loolu ñu naan an'am mu daganal ci yéen mu dagan ci yéen ci islam ngeen lekk ko ngeen fekk ko mi ngi médd bu leen ko lekk wala ngeen xam ne yéeféer yi ay bandi lañ ne yéen seen diine ji jaaxal nañ yéen bu ngeen reyee dagan na yàlla bi ngeen gëm bu reyee araam na ah dégg nga de bu fekkee xar bu dee nga ni ko ko rey ñu ne lii yàllaa ko rey ñu ne waa léegi nag ñu ne non amu leen amu leen droit lekk ñu ne kon kay yéen seen diine bi jaaxal nañu ah seen seen diine bi lu tax mu jaaxal ñu ne yéen bu ngeen rendee dagan na bu seen yàlla rendee daganu dégg ngeen wax bi fekk du loolu islam lépp loo xam ne yàlla moo ko rey comme ni ñuy doomu aadama di faatoo kenn du ko lekk kenn du ko lekk dafa aram ci lu mu mën a doon nag ci lu mu mën a doon bu fekkee ne dafa dagana lekk su ngeen ko fekkee mu médd sori leen almaytatu lu dul texte bi ñëw ne yenent bi nee na yàlla araamal na noon ci yéen ñaari médd ak ñaari deret waaye daganal na ci yéen médd yooyu ak deret yooyu uhillat lana almaytataani waddamaani fa amma almaytataani aljarraadu walxuut wa amma aldamaani fa taxaalu walkabadu yonent bi nee na yàlla araamal na ci yéen médd ba mu des ñaari médd yi ak ñaari deret yi ñu ne ko yan ñaari médd mu ne njéeréer ak jën njéeréer moom foo ko fekk mu dee defal say saaku yóbbul sa kër bu la neexee nga dugal ci taal bi boxam lekk bu la neexee nga saaf diwlin lekk waaw fii waaw am na mbokk bi de nee na moom mus na cee mus na cee ñam am na ginaar da ngeen koy lekk mas neex na mus nga ci lekk neex na de ah i allahu akbar cey si Sénégal ku fi invité nit ba tegal ko palaatu njéeréer police nga jëm suuf di nga gis sa bopp ci journaux yi la la parce que ñu nekk rek ak lu ñu xam gis nga ñun xamuñu loolu ñu nekk ak lu ñu xam moo tax yenn saa yi mbir dina dagan te nit du ko mën a lekk xam ngeen fas araamul mais tey boo ñëwoon benn waay ne la suñu fas bi laa rey bismillah nga ni lan nga ni loolu lu ngeen toog ni nga ni ko fas sëñ bi danaa la suur naa su génnee xam nga lu ñu wax ñii ay dëmm lañ pourtant loolu araamul de ngirum Malik daf ko sib mais imam Shafi daganal na ko fas waxuma laak nag xam nga ne ku dul lekk fas nga ni ko kaay lekk njéeréer la ilaha illallah ooy waay Sénégal laa wax ku fi ñëwoon kër añ jot ñu tegal la palaatu njéeréer jox la mburu ah dina am ñu lekk de waaye du bëri de parce que ñun xamuñu ko ñun xamuñu loolu bokkul suñu aada xamuñu ko du est-ce que nag léegi ñun xamuñu ko rek day tax mu araam déedéet ci charia dagan na yow kay waxal li charia wax dagan na ba nga gis nag kuy lekk tamit nga ba nga xool yonent bi gis nag saxaaba yi di lekk mbëtt xam ngeen mbëtt ñu lakk ko di lekk mu ne leen i di lekk lii gars yi ne ko ñamal mu ne baax na baax na baax na pourtant terewu leen waaye moom lekk ko ku nekk ak li nga bëgg waaye su fekkee charia dagal na la ko moom dagal na mu des nag sa xel bëgg na ko wala sa xel bëgg na ko wala yéen seen dëkk tàmm ngeen ko wala tàmmu leen ko dafa nekk ci aada am na nit ñoo xamante ne seeni dëkk dañuy lekk nangam loolu lañ fa fekk am na ñoo xam ne xamuñu yooyu waaw am na yoo xam ne nag moom dafa araam te boo demee ci yéen dëkk yi da ngay fekk ñu koy lekk loolu moom dafa araam ndax charia moo ko tere am na ñeneen ñoo xam ne nag danañ lekk loo xam ne dagan na waaye ñun xamuñu ko comme lii ma wax ni njéeréer am ñu koy lekk mais ñun duñ ko lekk parce que xamuñu ko ah bëriwul ci Sénégal ku lekk njéeréer bëriwul de ndax naa ne koñ boo dem boo fa doon wër ñu lekk njéeréer doo fa génne benn wala ñaar doo am juróom de waaw bu kenn wax nag araam na dafa dagan yàlla nee na xurrimat araam na araamal nañ aleykum ci yéen yéen ñan yéen ñii di tudd jullit almaytatu médd ndax loolu rek la mu ne waddamu ak deret gis ngeen waaye waxoon naa sànq deret tamit lépp araam waaye am na ñaari deret yu ñu daganal mooy lan res ak gàddaam dagan na ci ñun ñu lekk ko res ak gàddaam mais deret la lu dul lool nag fu mu la taqee nga jàppi soo pee juróomi dërëm sobe la lopp juróom bu la taqee rek sa njàpp yaaxu na demal nga jàppi su fekkee lu toll ne juróom la may nañ la ko sa njàpp tojul la nga ko ci sotti ndox rek mu dañ wa damu ak deret lii ñaari mbir la yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moom moo ko araamal ci ñun allahu akbar ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ mu ne wa laxmul xinziir ak yàpp mbaam yàpp mbaam xuux mbaam xuux mbaam xuux moom même bu yàlla ne woon dagan na ak ni mu mel ak li muy lekk am na ñu ko dul lekk mbaam xuux xool leen ni mu ñànge xool leen ni mu ñaawe xool leen ni mu salte la ilaha ak li mu bañu dara loo teg mu ne ko furuux ah waaw daraam normalul moo tax alhamdulilah ba ko yàlla teree billaay diine islam mooy dëgg xool leen mbaam xuux ni mu mel xam ngeen ne mbokk yi buñ la tegaloon njéeréer tegal la mbaam xuux ñu ne la lekkal xam ngeen ne walaay lekk njéeréer moo gën a moo gën a normal ak nga lekk mbaam xuux ba pare tey jii borom xam-xam yi trouvé nañ ci yàpp mbaam xuux li tax islam tere ko même bu fekkoon ne trouvé wuñu loolu sax l'islam lu mu ne baax na moo baax lu mu ne baaxul baaxul lu yàlla ne moo baax moo baax lu mu ne baaxul baaxul même bu ko borom xam-xam yi trouvé woon moo tax foofu nañuy def attention yenn saa yi ñu ne science sax nangu na ko yenn saa yi science mun na daanu te texte alxuraan moom du daanu waaye alhamdulilah ba incha allah science ñëwee léegi nangu ne yàpp mbaam xuux am na ci lu ci nekk bu ñu ko dugaloon cent degré ci safara tamit du ñor du dee microbe mooy teeñaa yi ci nekk loolu boo ko lekkee ba tey day lekk sa yàpp moo tax gis nga chaque jour da ngeen gis ñiy lekk yàpp mbaam xuux seen yaram nu ñu mel bu ñuy màggetee parce que day feeñ ci ñoom lépp kay seen léppay changé ku ci màgget rek changé ne mbaam xuux bi mel ngay mel moom kay dama ne kuy lekk yàpp mbaam xuux xool ko rek ba mu màgget su guddee fan nga gis ko mu mu yëf yi am trace ci moom kon kay yàlla moo wax dëgg. la béy.
waaw gis nga defaral da ko lekk ak ak appétit.
laa ilaha illa déggoo gars yi ne la bañul dara. ba bu xale boo amoon doom nga teg ko ci pot yooyu ñuy dem ginnaaw kër bu xale bi jógee mu lekk ko. amul amul lu mbaam dul lekk. te soo ko fekkoon muy lekk ci àll bi wallahi mbokk bu nu la ko reeloon tamit saaf ko def ci lépp ni la kaay doo lekk mbaam moom la yàlla alak moom la yàlla rëbb bañ nañ ko sax ba gaa yi bañ ko ba ne mbaam ne xuux waaw laxmul xinziir yàpp mbaam xam nga mais am na ci yenn saay saay ak bandi yoo xam ne wala Sénégal am nay débiteri yàpp mbaam ko xam ngeen ne Sénégal am na fi soo demee marché bu bees wala nga dem Baye Laye wala nga dem Grand Yoff da ngay gis dibiteri yàpp mbaam xuux nga gis julli ñi rang la ilaha illallah ay waay Sénégal ñoo bari natt ñoo am natt lu yàlla ne araam la gars yi di koy jaay nga gis nit ñi rang am na ci kàccooru jullit yoo xam ne da ngay dégg ñu ne non su ngeen gisee yàlla tere ko dafa neex quoi dafa neex moo tax yàlla di ko tere dafa neex waaw est-ce que loolu dafa neex moo tax yàlla tere ko loolu la déedéet yàlla dafa xam lu baax ci ñun xam ne li baaxul moo tax mu tere ñu ko yàlla lu baax rek la ñu digal sàngara ngi nii amul benn njëriñ moo tax yàlla tere ko xoolal riba xoolal carte xoolal njaaloo fi mu nekk nii koo fi ne njaaloo dafa ànd non waaye sa boo ko ne woon indi sa yaay ñu def ko lu muy wax indi sa rakk bu jigéen ñu def ko lu muy wax indi sa mag bu jigéen ñu def ko lu muy wax kenn bugg ko ni nga ko bañee ci say mbokk ah bul ko def doomi jaamu di bul ko def kenn gis nga mu ngoog kon lépp lu nu yàlla tere ndeysaan benn waay mu ne man daal gis naa ne yàlla lépp lu mu tere rek lu mu war a tere la lépp lu yàlla tere kenn du ko gis ne yàlla di ko tere mukk da ngay gis ne lii soo duggoo rek lorang ci biir boo duggee rek lorang ci moo tax balaa nga ci dugg yàlla tere la ko kon yàppi mbaam xuux yàlla def ñu ko tere ndax loolu rek la mu ne déedéet wa ma uhilla li gayrillahi bi ak lépp lu nu rendi te rendi lul ko yàlla rendi luñ ko yàlla wala tudduñ ci turu yàlla waaw ma zukira alayhi ismu ismun gayru ismillah biñ koy rendi waa ji dafa ne ci barke diw rendi ko loolu araam na wala biñ koy rendi li tax ñu koy rendi mooy guy gii wala ku feebar kii ah wala xàmb yi wala bàmmeel yi dafa araam moo tax na ngeen def attention am na gaa yu dëkk ci koñ yi bis bu nekk ñu rey xar bis bu nekk ñu rey nangam saam yàpp yi dugal ci kër yi ngay jékki-jékki rek ñu ne eh, yàpp ñëw na dafa ndànk de yàpp yooyu araam naa lekk am nay buxaaba yu dëkk ci koñ yi semaine bu nekk danañu rendi am na benn waay bu dëkk fii mu ngi tudd kaafiru diin ah xam ngeen kaafiru diin lu muy teg ci arab ci soose nag xaw ma lu muy teg après soose yi firil ñu ko kaafiru diin ci arab mooy lan mooy ku weddi diine waa ji bis bu nekk dina rey nag ñu fees nag bi saraxe yàpp bi ci koñ bi bi ñu ne paa yi kii li muy def araam paa yi ne dimbali leen ñu suñu yàpp bi rek ngeen ñu bëgg a taaj kii ku baax la dimanche bu nekk kër yëpp yàpp la ñuy añee Sénégal problème lekk la ñu am biddéew bi xam ngeen biddéew bi naar bi bi mu defee biddéew bi daasin ak boulangerie li may wax xam nañ li may wax bi mu defee biddéew bi daasin bi mu tuddee ko biddéew bi mu def boulangerie bi xam nga dansine bi ak jàkka ji ñoo jàkkaarloo nit ñi di kaas saa yu xëyee suba paa yu paa bu julli si fajar mu jox la ñaari kilo mburu yu tàng jër bi waa koñ bi dox paa yi dañu ne dimbali leen ñu kii ku baax la gisuñu ci moom li ngeen di wax mooy ne dansine baa ngi jàkkaar paa yi ne gis nga mun leen fexe fi ba ñu réunion fi ne dañuy tëj dansine bi bàyyi leen dansine bi bu leen fa dem parce que mburu mi ñaari kilo mburu yi fajar mu ngi tàng jër ñu laxas jox la nga dagg bopp bi muy puxum puxum loolu nga fa ne gars yi dañoo dof da moo tax ñu am problème am nañu koñ yi lu bëree fay xew nit ñi xam nañ ko de ñoo la ko gën a xam mais olof yi ñoo ne ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa waaw dama lire benn benn message bu ñu ma envoyé ci Facebook bi benn xaj dafa dee xaj waa jaajël xaj bi daal di koy suul ci armée lu julliti ñu dem boole kook juge bi ñu ne ko diw ku yabaate la jullit ñi mars yuuxu dem boole ji ko justice juge bi woo ko ne ko yow il paraît da ngaa jël xaj yow xaj ni mu araame ci islam nga dem di ko suul ci armée lu jullit yi yow foo teg loolu mu daan ne monsieur le juge xaj bi bi muy dee dafa def testament dafa def wasiya ñaari mbir juge bi ne ko xaj dafa def wasiya mu ne waaw ñaari wasiya mu ne waxal wasiya yi mu ne bu njëkk bi mooy yow daa la jox 2 millions deuxième wasiya bi mooy bu dee ma dugal ko ci armée lu jullit yi suul gis bi mu ne ndeysaan cey xaj yal na ko yàlla yërëm day waay xaj xam naa sa xaj boobu moom dafa bokk ci famille asxaabul kaaf yi foofu la bokk ah nit ñi daal di jóg ñibbi foofu lañ àdduna bi toll day foofu lañ toll nii fii loo bëgg a ara loo bëgg a daganal rek indil taraanga ci kanam joxe ba pare rek def li ngay def kenn dox dara xaj dina def wasiya ah mais waa ji moo la gën a xam ne kii nii su ma ko joxee xaalis dana daganal li ma def te du ma kenn du ci mun tus moo tax mu ne xaj bi dafa def wasiya naa la jox 2 millions après ma suul ko ci armée lu jullit yi mu ne allahu akbar cey xaj ndeysaan yal na ko yàlla yërëm xaj bi mi ngi bokk ci famille ashaabul kahfi xam ngeen ashaabul kahfi ba ñuy dem dañoo àndoon ak mooy raxiim ah mu ne mu ne mu ne comme xaj boobu dafa baaxoon mu ne xaj bi mbokk xaj boobu la nii nag la àdduna bi mel nii la juge yi mel nii la dëkk bi mel loo fi xalaat rek am na fi mooy lii ngeen di gis nii gars yi nekk ci koñ yi di joxe ay yàpp di joxe di joxe moo tax balaa ngay lekk yàpp xamal lu yàpp yàppe semaine bu nekk gars yi dañuy rendi dimanche wala samedi wala nangam lépp loo xam ne dañ koo rendi te rendi yooyu bu ñu koy rendi du ñu wax bismillah parce que du jaamu yàlla xërëm la benn dañ koo rendi waxuñu ci tur yàlla ñaareel bi biñ koy rendi li tax ñu rendi ko du yàlla yooyu yëpp araam naa lekk génn nañ xuruj man ak benn mbooloo sunu xuruj boobu ñu ngi ko defoon corniche fële Mermoz ci benn mosquée fa lañ defoon xuruj bi fajar bi ñu jullee ba pare ñu ne nañ génn daawa tefesu géej xuruj xuruj mooy comme li gars yi def rek génn ci yoonu yàlla dem woote ji woo nit ñi ci yoonu yàlla loolu mooy xuruj mooy xuruj quoi génn ci yoonu yàlla biñ demee ñu wàcc dem corniche fajar ba pare rek ñu wàcc géej gi ñëw fekk benn benn soxna wàcc gaare otoom ak chauffeur am ñu ubbi seen maalu oto génne ginaar waa ji yor paak tëral ginaar gi jubal ko sow di ko waaj a reen suñu amir mu ne gis ngeen waa ji li muy def ñu ne waaw mu ne lu ngeen ci xalaat ñu ne xanaa ñu wax ak moom mu ne ñaan naa ndigal ma dem wax ñu ne ko demal mu ñëw ne waa ji asalaamaaleykum waa ji mu ne waaleykum salaam mbokk na ngeen def ñu ne alhamdulilah mu ne waa ji tur bi waa ji ne Ismaïl mu ne ndaw si mu ne Fatima mu ne yéen de ay jullit ngeen mu ne waaw mu ne lu ngeen bëgg a def nii waa ji ne ko ah dañ koy rendi mu ne indi leen ma rendi leen ko ndax mun naa ko rendi gars yi ne waaw mu tourné ginaar gi penku rendi ko xam naa neexu leen nag waaye ñoom ñoo wax parce que ñoom mun naa ko rendi ñu ne waaw mu tourné ko rendi ko daa leen jox seen paak ne jërëjëf waaye jazakumullah xayran xam naa mu bàyyi leen problème ñun ñu continuer waaw billaahi wallaahi taala waaw wallaahi waa jaa ngi tudd Khalifa Ndiaye moo ñu jiite woon keroog Khalifa Ndiaye noonu la tudd moo ñu jiite woon keroog pour wax leen ne adduna bi lu nekk moo fi am léeg-léeg ñu ne la boo boo koy rendi boo ko rendee ba pare bul gestu waaw léeg-léeg ñu rendi ko ne la deret ji bu mu laal suuf léeg-léeg ñu ne la boo ko rendee ba pare jéggi ko yu kenn xamul yu kenn xamul moo fi am ci dëkk bi yëpp xërëm la Sénégal li ñu gën a xam gëm li ñu gën a tardeel mooy xërëm xërëm ak ñoo gëm xërëm surtout ay rendi nii te gis nga képp ku xasa rendi mooy dugg nga ci lu mag bi de boo xasee tuur deret xoolal yonent bi ne laana allah man zabaha li xayrillah yal na yàlla sori yërmande ku rendil lu dul yàlla saa yoo xasee rendi pare nga même malade bi bu ñu ko rendilee terminé du wér te safara la jëm waaw bu dee moo ko santaane kontaan na ci ñu rendil ko du wér te safara la jëm yàgg ko def kenn du feebar di rendi kenn du sangoo deret sobe la wax nañ ko léegi wa damm wala wa laxmal xinziir wa ma uhilla li gayrillaahi bi ak lépp loo xam dañ ko rendi te rendi luñ ko yàlla subhanahu wa taala wala waxuñ ci tur yàlla bu ci tegu wal munxaniqatu mooy bu xoju loo xam dañ ko takk ci bant wala dañ ko takk ci weñ dañ ko takk ci grillage dañ ko takk ci place ki ko takk mi mu demee xar mi di wëru ci baat bi la ko takkoon xar mi di wër di wër di wër ba buum bi xoj ko balaa ñuy yëg ñu daw ñëw fekk dee na kenn du ko lekk mooy bu xoju wal mawquuza mooy bu ñu dóor mu dee da nga am xar wala da nga am nag wala da nga am gëléem wala da nga am béy muy lappi lappi nga dóor ko yat ci bopp mu kaddi kaddi nga daw jëli paaka ñëw fekk mu sedd araam na nga lekk ñaata yuñ tere ngoog ñaata yu yàlla tere guma ngoog ah bu njëkk bi mooy lan méd ñaareel bi deret ñett yàpp mbaam xuux ñeent lu ñu rendi te waxuñ ci yàlla juróom lu xoju juróom benn lu ñu dóor mu dee waaw léegi lii suñu bàyyee ba nit dee ñu ñëw di jàng aaya yi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله loolu ban njëriñ la waa jaa ngi nii dee nga naan ko yàlla daa araamal mid araamal deret léegi kii dee na moo tax islam bi aaya yi du pour ku dee léegi ku dee ki suñu nee lii araam na ci moom te mu ngi nii dee daa dee mu ngi nii ñu ngi nii di ko waaj yóbbu morgue ba gaa ngi koy sang ñi gaa yi nekk ci mu ngi koy ñu ngi koy sang fi gaa yi ngi ci biir jàkka yi di di jàng hurimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal mukhallaqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadiyatu wa ma akala sabu lii lii ay luwa la wala mbokk yi lii du ay luwa léegi ku dee ki moom lii lii ku dee ki lu mu koy jëriñ voilà gis nga erreur bi ñuy def lii pour nun la ñun ñuy dund ñu xam fu ñuy teg suñu tàng moo tax islam bi bi ñu bàyyee jàng alxuraan bi xam aaya yàlla yi lañu am problème moo tax dañuy rajaxe rek gis ngeen diine ni mu ni mu mel ni mu setee xoole li yàlla di la wax lu xoju sax mu ne la bul ko lekk lu ñu dóor mu dee mu ne la bul ko lekk parce que yow yaa ko rey yaa ko dóor yat wala yaa ko xoj ak buum mu dee ñu ne la doo ko lekk lu mu ci teg wal mutaraddiyatu mooy lan assaaqitatu dafa daanu ba yëg ci montagne bi daal di daanu dee wala ci miir bi la yëg daal di dee wala ci garab gi la yëg daal di daanu dee amoo droit lekk dafa jóge ci kaw wadd ci suuf dee yàlla mu ne bu leen ko lekk xikma yi ci nekk nag borom xam-xam yi wax nañ ko waaye balaa balaa xikma yi di ñëw almuhimu li am importance mooy texte bi ba pare yàlla nee na bul ko lekk bul ko lekk waaye lan moo tax yàlla naan buñ ko lekk sa yoon nekku ci te laaj boobu du teggin mi ngi mel ne sa papa ne la diw nga ne ah mu ne defal ma ndox ci satala bi da nga naan papa loo koy doyee ndax loolu teggin la wan nam ndiyeme satala baba ko mbatta ɗum ɗum wan ɗum wona niidi ko niidi na niidi waaw bu fekkee nag kooku lañ war a respecté massamaak yàlla walillahi almasalul aala ëpp na sax ñuy joxe yàlla misaal ba waaye dafa am laaj yoo xam ne du teggin maanaa lii yàlla moo ne araam na araam la yàlla moo ne bu xoju bu ko kenn lekk bu ñu dóor bu ko kenn lekk bu daanu bu ko kenn lekk yàllaa ko wax jeex na borom xam-xam yi nag dañuy wax ne gis nga xar bu ñu koy rendi wala nag wala deret jooju di génn deret jooju mooy sobe li tax nag bee ñu ne bul ko lekk parce que deret jigéenul bi mu daanoo dee deret ji dafa tas ci biir yaram bi noonu la dee bi mu mbëkkoo dee noonu la bi ñu ko dóoree mu dee noonu la bi mu xojoo dee noonu la deret jigéenul moo tax ñu ne la bul ko lekk waaye yooyu sax ay xikma la yoo xam ne borom xam-xam yoo ko waaye li wér daal mooy yàlla moo ne bu leen ko lekk bu leen ko lekk ñun daal foofu lañ ko kal yàllaa wax ba leen ba leen lii a tax lee la tax nangam ak nangam suñu yoon nekku ci yàllaa ko tere même mbaam xuux mi yàlla moo ne bu leen ko lekk bu leen ko lekk am ma am na lu ciy ñorak day ñorak day nangam ak suñu yoon nekku ci yàlla nee na buñ ko lekk duñ ko lekk loolu daal mooy wax bi kon bu xoju mooy wal mun xaniqatu bu xoju bu leen ko lekk wal mawquusa mooy bu nu dóor yat bu ko kan lekk wal mutaraddiya mooy bu daanu wan natixatu mooy bu ñu mbëkk morooma ko mbëkk tel mu faatu wala oto ko mbëkk tel mu faatu bu ko kenn lekk dafa araam wa ma akala sabu ak lu bukki lekk ñoo fekk bukki lekk araam na lekk nañ ndigg li lekk ñaari tànk yi mu des bopp beeg dënn beeg ñaari tànk yi ci kanam nga naan li kay xéewal la xaaramay deet amootoo droit lekk ko bàyyil illa ma zukkiitum nag su fekkee nag dañ ko commencé lekk dañ ko jàpp commencé xamp rek nga daw ñëw ñu daw bàyyi ko ah illa ma al foofu laa jëm foofu laa jëm su fekkee da ngeen a ñëw rek mu mu daw ngeen gis muy kaddi kaddi mooy illaa ma zukitum léegi nag yéen yéen a ko rendi yéen a ko dab rendi ko su boobaa aha mën ngeen ka ay adraktum fii ruux fekk ngeen ci ruux hmm? illaa ma zakkaytum lu dul lu ngeen dabaatal daw ngeen daw ñëw ah am na lu ko jàpp ngeen daw ñëw loolu daw ngeen gis ko muy kaddi kaddi deewagut ngeen daw rendi ko su boobaa mun ngeen kaa lekk waaye bu ngeen ñëwee fekk genn wàll fa des gaa yi lekk nañ genn wàll fa des dee na métti na bu yàgg bu yóbba ngeen bàyyi leen ñu yàggali ko ndax aram na ci yéen ngeen lekk waaye bu ngeen dabaatalee ci moom ruu su boobaa dagan na ci yéen ngeen lekk ko ndax fekk ngeen ruuwam ci ah adraktum fihi ruux fa zakaytumuhu ngeen rendi ko bi zabihatin aw nahwihi wala ngeen loj ko su ngeen ko rendee wala ngeen loj ko loolu ngeen fekk ruu su boobaa dagan na ci yéen ngeen lekk wa ma zubiha ala nusubi lépp lu ñu rendil xërëm yi araam naa lekk gis ngeen lépp lu ñu rendil xàmb yi lu ñu rendil tuur yi lu ñu rendil samp yi lu ñu rendil jalang yi lu ñu rendil guy gi araam naa lekk lii leer na nañ gis nga ay texte la sans commentaire lii jarul sax demal ma dikk lii dafa leer nañ waaw lii mooy islaam nag lii la yàlla bëgg ci ñun ñu respecté li mu wax ñu bàyyi li nga xamante ne moom la tere lii mooy diine diine dafa am lu mu daganal am lu mu tere gis ngeen lii ci li diine tere la bokk mooy sànq bi mu lay wax mu ne la fukki mbir la yoo xamante ne charia daf ko tere yoo xam ne amoo droit lekk ko wa an tastaqsimu bil azlam loolooy lan mooy araam na ci yéen ma taxsuluuna alayhi bil istisqaam bil azlam mooy li nga xam ne da ngeen koy rendi ci ay xërëm ci ay samp waaw li ngeen di jël di ko yóbbu ci tuur yi ñu ne la lii kat foog ñu takkal ko nangam rendi ko waaw bala ñu koy rey foog ñu sang ko ci nangam foog ñu takkal ko nangam même tabaski tabaski da ngay dégg ñu ne xar mi bala ñu koy rey. nañ ko jàppal ba pare jàppal ngeen xar mi ñu ne papa xaaral ñu jàppal ko suñu benn xarit day ñëw fi tafsir papaam ne ko yow jàppal ngeen xar mi mu ne ah dañ koy jàpp papa ne gis nga yow bàyyil sax bàyyil taxawal fële papa jaani rakk ji. diw mu ne ah mu ne ko jàppalal xar mi xale bi daal dem jàppal xar bi mu commencé rendi xar mi saw waa ji ne ko papa xar jàpp bi toj na de mu ne ko xaar ma ba ma pare paa bi xamul luy de mu ne ko Aliou dara doon xam ne gay na fa xaar ma ma ñëw ah pourtant wax na dëgg de njàpp mi toj na ana xar ak jàpp yooyu ay caaxaan la yoo xam ne moom la nit ñi def takkal nangam da ngay gis même xaar mi bu ñu koy rendi bu ñu paree nit ñi ñëw di càpp ci deret ji di def seen jël deret boobu nee nañ sobe la wala du loolu la ñu wax sànq ci njëlbeenu aaya bi wa damu wala ñu ñëw di ci tànk ni ñu ne ku noppam di metti boo ko ci tokkalee day sedd deret jooju sobe la sobe kenn du ko fajoo ay mbir la yoo xam ne mu ngi ci biir dëkk bi nit ñaa ngi koy dund te lu ko waral li ci ëpp mooy ñenn ñi xamuñu ñenn ñi waxuñu leen ko ñenn ñi ay borom xam-xam ay caaxaankat ñoo leen ci dugal yoo xamante ne seen poos la ñuy sàmm fekk loolu lépp mbokk yi dara yàlla wéralu ko ci mbir yaa ngi nii dafa leer nañ li tax diine ji dund lëndëm tey mooy ñàkk a wax dëgg nit ñi rek ne lii yëpp dafa aram dara daganu ci lu mu ci suñu borom subhanahu wa taala teg mooy gis nga lii lépp mu ne zaalikum fisq lii lépp kàccoore la ku ko def rek génn nga ci topp yàlla zaalikum lii lépp ñu ne ah mu ne fisqun ak kàccoore la gis nga de kàccoore la banditisme la ku ko def rek génn nga ci li la yàlla sant mooy lekk de lekk medd teg ci xërëm yi ah xurujun ani taatillah génn la ci topp yàlla wa taatilahu subhanahu wa taala wa taati rasul ku ko def rek mooy nga yonent bi mooy nga yàlla génn nga ci islaam bu yàgg ndax kàccoor nga gis ngeen zalikum fisq lii lépp yàlla nee na kàccoore la mooy lan lekk mid deret jàpp mbaam xuux lu ñu rendi te tudduñ ci yàlla ah ak lu xoju lu ñu dóoriyat ak lan lu daanu ak lan lu ñu mbëkk lu bukki yi lekk ah ak lan lu ñu rendil xërëm yi lu ñu rendil tuur yi zalikum fisqun yàlla nee na lii yëpp génnuk topp la mu ne al yawma tey ya isu dina yàkkeeku ñan ñooy yàkkeeku mu ne allazina kafaru ñi nga xam ne an yi ay yéeféer lañ min diinikum ci seen diine ji allahu akbar waaw parce que xam nañ ne lislaam dem na lislaam kenn mënatu koo téye sunu benn sëriñ day wax ne saa yi ma duggee ci kaaba gi ñu ne allahu akbar allahu akbar mu ne abu jahilin fenn est ce que xam ngeen ne affaire bi am Belgique bi mu amee ba léegi xam ngeen lu ci xew ah parabole bi 97 dañ cey génne màkk kaaba gi xam nga dañ ko doon amoon benn scène boo xam ne kaaba gi lay génne ñu koy wër dañoo coupé loolu amatul ci parabole bi bëri nag seetlu wuñ ko même man mi démb lañ ma ko wax lu tax parce que nee nañ kaaba gi moo indi terrorisme ci kaw suuf am na benn sénateur américain temps yi la passé loolu la wax sénateur bi moom parti politique bi mu bokk xam nga parti politique yi ku nekk da nga am drapeau maa da nga am sa sa benn slogan sa benn xa xàmmekaay bu ñu lay xàmmee parti socialiste lan la bu Sénégal couleur vert drapeau ci digg bi Pa- PDS couleur bleue mboq LDMPT LDMPT ah ah kay martu ak lan ak ak si gopp bu ñuy bàyyee Macky Sall fas ah ah sénateur boobu xam ngeen parti am moom lan lan la lan la ban soxla su nga la yor ñay ñan ñoo ne woon nañ ko ci kaaba gi lu ñu waroon ñay moo tax mu ne kaaba gi moo fi indi terrorisme parce que loolu lañ gëm gis nga ñay lañ yor dara amul hasard qad jaala allahu li kulli shay'in sabab wallahi projet bi am nu américain yor ak yahudi mooy bombardé ji màkk du dañ de moom la ñu gëm te moo nekk seen xol yi te loolu moom la ñuy liggéey nii te commencé na bi ñëpp bu ñuy rajaxee ñëpp ba pare fan yii ñi ngi màkk ñu ne màkka moo fi indi terrorisme du jeex bu yeboo nit ñi xam loolu bu yeboo nit ñi toogaale ko bu yeboo nit ñi gëm ko gëm ngeen ko gëmu leen ko loolu mooy li am wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum in istataau du ñu deñ di leen xeex feeg yéen a ngi gëm yàlla du ñu deñ di leen xeex waaye nag islam moom kenn mënu ko fee jëlee mën nga fee jëlee jullit waaye islam kenn mënu ko fee jëlee jullit nag mën nga ko fay jëlee mën ngaa rey jullit bi mën nga koo tëj mën nga koo mën nga koo waaye islam moom mën nga ko fay jëlee islam moom kenn mën ko fi jëlee ndax jant bi nit mën na xëy mën na fexe du xë- du xëy sow ah ndax nit mën na xëylaa ne jant bi tey moom bu soobee yàlla du fi sowee ndax nit mën na loolu ah walaay comme mënuñu lool nag nañu xam ne l'islam bi kenn mënu ko fee jëlee loolu moom na leer ci ñun suñu bopp ñun lañ yëngatu nañ ci yëngatu wuñ ci nekk nañ ci nekku nañ ci nekkuñ ci défendre nañ ko défendre nuñ ko dund nañ ko dunduñu ko inna li diini rabban yahmihi maamu yonent bi bi abraha ne day toji kaaba gi jël ay ñaayam waa màkk xamuñu ñay mosuñu gis ñay di xeex dañoo ñëw daw dem ci moom ne ko ah abraha de ay ñaay la yor te ñun xamuñu mosuñu gis ñay di xeex te ñun ñemewuñ ñay nu ni def mu ne daw leen ngeen yéeg ci xe- montagne yi ngeen toog foofu ndax ñay mënut a yéeg montagne xeer yi gars yi ni ko kaaba gi nag mu ne leen kaaba gi am na boroomam boroom dina ko garde inna lil bayti rabban yahmihi kaaba gi am na boroomam bi abraha dajalee armeem di ñëw lan la ko yàlla yónnee pourtant yàlla mënoon na yónni malaaka yi wala yàlla mënoon na xar suuf si mënoon na yónni géej gi waaye déedéet kon dañ naan lii lu ngande la xam nga yàlla ku ngan ngand la lu ndaw lay yónnee ku ndaw moo yónnee lu ngand pour mu rëy pour moom mu rëy comme yàlla ngand la lu ndaw lay yónni pour nit ñi xam ne kii ngandal alam tara kayfa faala rabbuk alam yajal kaydahum gis nga abraha bi mu ngande ke- namrud bi mu ngand ngandloo xam nga moom dafa tuuti mais ngand ngand la yàlla yónnee ko yoo yoo la ko yàlla yónnee yoo waaw yoo abraha bi mu ngand ngandloo yàlla yónnee ko ay picc wala mu ma yónnee malaaka ay picc parce que yàlla mu ngoog subhanahu wa taala te nag lépp looy gis ci kaw suuf armée yàlla la wa ma yaalamu junuuda rabbik te wa inna jundana lahumul ghalibun daal nee na sama soldaar yi ñooy gañe de firaaw na xam nga yàlla lu mu ko yónnee woon ay téeñ ku mu toog téeñi di ko wam muy wokkatu téeñi bi ñu passé yàlla yónnee ko ay matt matt yi jeex ñu defe na jeex na yàlla yónnee ko ay mbott mbott da ngay ŋaang rek benn mbott plongé fiiw dugg kenn ñëpp kenn ñemeetul wax nit ñi naan nii ñëpp baaraam la ñuy waxee ay mbott nga ñëw tëdd mbott yi plongé sa kaw ba fees daal sa biir néeg ñu am problème kenn du génn ku gaare sa sa sa sa waruwaay bu doon tey la ku gaare sa oto boo yeewoo fekk mbott yi dugg ci badoo doo xam fu ñu jaar nekk ci kaw ñu sonn ñu ne Moussa yàlla yónnee leen deret amuñu lu ñu naan lépp nekk deret dem nañ ba nit ñi nga xam ne amoon nañ ndox nga xam ne dañoo gëmoon yàlla seeni mbokk yéeféer yi nga xam ne lu ñu am deret la nga ñëw ci sa benn mbokk ku gëm yàlla nekk nitu Moussa nga ni ko maa ngi bëgg a dee gëj naa naan may ma ci seen ndox mi ndox lay tànk soo ko joxee ci pot bi mu nekk deret ñu ne xam nga waa ji ne la xam nga nooy def nga ne nga ne da nga koy sex mu nekk ndox mu ne nga sottil ma ko sama gémmiñ ma wan bu ko waa ji sexee muy ndox boo ŋaangee buy rek mu nekk deret mu nekk yàlla yónnee na leen ko yàlla yónnee na leen jaraat ay njéeréer wal xumala ay teeñ wa dafaadi ak ay mbott tis a ayat juróom ñeenti kéemtaan yàlla yónnee ko Firawna waaye dañul ñoom ñëpp ñu nekk kàccoor am mu ngoog kon nag mbokk jullit yi lii tamit ay mbir la yu nu sunu borom subhanahu wa taala wax ne tey jii yahuudi ak nasaraan yi danañ yàkkeeku ci seen diini waaw waaw danañ ci yàkkeeku yuxbiru taala al muminin an al kafirina min al mushrikin wa gayrihim qad yaisu an yaruddukum an diinikum tey jii mënatuñu fexe ba yéen du ngeen julli mënatuñ ko mënatuñ fexe ba du ngeen gëm yàlla mënatuñ fexe mënatuñ leen delloo ginnaaw waaye léegi nu ñuy def ay stratégie la ñuy jaar wiiri waaw fexe di yàq fexe mais fexe tey jii kan moo mën a fexe ci àddina bi ba kenn kenn noddati bu kenn julli kan moo ko mën kan ngeen fexe yaakaar ngeen ne dina wax ci àddina bi nag bu kenn julli ba nit ñi duñ julli mbokk yi mënatuñ ko waaye yàlla mu ne it yàkkeeku nañ amatuñ ci yaakaar waaye léegi nag comme amatuñ yaakaar dañuy wiiri ci yeneen pexe pour gàllankoor leen pour yàq njaboot gi pour yàq dund gi yónnee fi ay feebar tas fi ay musiba ay guerre yu dul jeex pour du ngeen es du ngeen am dal pour du ngeen mën a liggéeyal seen borom pour dootu leen tal jaamu yàlla léegi loolu mooy xeex bi na ngeen fexe ngeen wàññi jullit yi parce que bu ñu bëree ci àdduna bi dañ koy nangu loolu mooy politique américain yeeg yahudi yeeg nasaraan yi tey bu julli di bëri parce que xam na ne ay études yu leer la seeni borom xam-xam def fii ak temps monde bi ju islam daf koy nangu léegi lu xew fexe leen na julli di di dee par jour lu kenn mënta lim te loolu moo am na ngeen fexe ñuy feebar te kenn mu leen faj na ngeen fexe ñu nekk ci toroxtaange ci ñàkk benn xale wax na ko ci TV5 France 24. xale bu jigéen boo xam ne dundul sax diine bi mu gisee bato yi nit ñi di dugg africain yeeg arabe yi di dugg ci bato yi di dee ñooy bàyyi bato yi nit ñi di lab di dee. ñu def benn débat France 24 mu ne moom man li may wax rek mooy ñi xam ngeen lu tax ñuy dee arabe lañ jullit lañ africain lañ jullit lañ moo tax ngeen seetaan leen ñu dee wallahi bu doon waa Europe la duñ dee di ngeen débloqué mooy yëpp pour duñu dee. gis ngeen fépp fu jullit yi di xeex seen bopp kenn du àtt seen ngeen loolu fépp fu nu yahud yeeg nasaraan yi dominer jullit ñi kenn du àtte waaye fépp foo xam ne jullit yëpp doole suba ñu àtte léegi ñoo ni casque bu la yi seetlu leen lool kon yeewu leen mbir yaa ngi nii de yàlla moo nu ko wax al yawma tey yaisu yàkkeeku na allazina kafaru amatul yaakaar min diinikum ci seen diine ji mënatuñ koo baare day dem fala taxshawhum bu leen leen ragal wax saw ni ragal leen ma man yàlla gis ngeen de leen lan ragal amuñu droit ragal kenn sunu borom dong lan war a ragal waruñu ragal kenn kenn kenn fala taxshawhum wax saw nii al yawma tey akmaltu laa matal lakum ñeel leen diinakum seen diine diine ji matal naa ko keroog ci arafa la aaya bi moo mujjee wàcc ci alquran aaya bi moo ne diine ji mat na kenn bu mu ko yokkati waaw kenn warut ci indi dara kenn waratul rafetlu waaw soo gisee soo gisee sëriñ bi def lii dafa gis ne ah, nit ñi foog ñu jéem leen eh, eh, eh, eh, eh. ay caaxaan la laa wax sëñ bi lu muy indi na dem jël li yonent bi indi jeex na yonent bi li mu indi mënut a jeex su fekkee ay wird la indi yonent bi indi na wird su fekkee ay sikar la yonent bi indi na sikar su fekkee lu ñuy jàng yonent bi indi na ko su fekkee jaamu yàlla la yonent bi indi na ko yow kay au lieu nga naan waa ji mooy démb lu ma wax juma nga gis ku julli ba pare man yenn saa ma gis julli pare jàng gis ku naan waaw kii li muy def nii ah bind kay bind ñii ngi bind kii di bind ci sijaada ji wala muy samp wala muy bind ci suuf si kii lii muy bind nii ndax yonente bi jox ko lu mu war def yonente bi jox na ko wala jox ko waaw kon lu tax loolu te loolu rek boobu rek la am na yeneen ak yeneen yu dul jeex yonent bi indi na kay yow bu au lieu ngay jël di jox keneen ne ko yonent bi indi na soo demee nangam a nangam jëlal loolu loolu yonent bee ko doon joxe gars yi li yonent bi indi ñaan yonent bi joxe ne day musluwaate wala wala wala wala ak ni yi la nit ñi di jox ban mopp barke ah da ngay gis kenn mu ne non gis nga lii sama benn paa moo ma ko jox quoi oui paa paa bu garaaw paa boobu li mu la jox ak yonent bi li mu la jox lépp barke ah man dinaa gis lu yonent bi indi may ma ma ko fi bàyyi naan damay jël lu benn paa indi yàlla tere xanaa kon nga alku dugg safara benn paa dama indi ko rek ma kaay waxul lu xunul muy werante ak man mu ne lu tax doo xunóot waaw ba pare mu daan dem man ko waa kaay man ko bu leen dégg jullee ngeen ñaanal ko ci da doon ñaan xamu ko man ko moom da doon daawul mu dëgg daaw rëdd mbaaru paa bi day rëdd dana ko fay bàyyi daal dem moytul moytul balaa ñu lay dóor kurpeñ yàlla mu ne al yawma tey akmaltu laa matal lakum ñeel leen diinakum seen diine ji mat na lii leer na mu ne wa atmamtu ma matal aleykum ci yéen ni'mati sama xéewal yi ndeysaan jeex na yàlla nee na matal naa diine ji tëj naa buntu yi kon kay xéewal gi defal naa leen ko muy xéewal lislaam wara daytu lakum gërëmal naa leen al islaama islaam diinan muy diine lii jeex na wara daytu lakumul islaama diinan yàlla nee na diine ji ma gërëm ci kaw suuf mooy islaam ana leneen lu ñuy utati jeex na matalal naa leen seen diine matalal naa leen xéewal yi ma leen indil wa atmamtu alaykum ni'mati sama xéewal matal naa ko ci yéen mooy islaam waradaytu lakumul islaama diinan gërëm naa gërëmal naa leen islaam muy seen diine mu ne famani turra képp ku loru nag fii max masati nekk ci xat-xat xat-xatu xiif fii siddatil juu xatta yadmarul batna li qillatil gadaibi ba biir bi lem wañu ndax xiif gayra mutajanifin lil ismi nekkul kuy ut bàkkaar dafa xiif su boobaa mën naa lekk médd médd bi ñu ko tere woon waa ji dafa loru dafa xiif ba waaj a dee xam na ne fii mënut a dem dëkk ba du fa yegg ci yoon bi lay dee lan la ko charia sant mooy médd mi mu tiim na ci dagg lekk bu ñoree bu ñorul waaye na ci sax ut yóbbal di lekk ci yoon bi di lekk ci yoon bi ba saa yu yegg bu demee ba yegg dëkk ba nag fekk midd baa ngi des ci poosam wala mu ngi des ci gafakaam su boobaa mu daal di koy sànni ndax léegi egg na ci ay mbokk jullitam egg na ci ay nit ñoo xamante ne su buggee lekk ñu jox ko mu lekk yàlla mu ne na ngeen yëg ne lii lépp am fa inna allah yàlla xafurun jéggalaakoon la rahimun yërëmaakoon la sunu aaya fu mu jeexe tey yàlla day jéggale yàlla day yërëme waaye kuy jéggale ku nekk lan nga bëgg ku la jéggalu nga bëgg ku la ne jéggal ma nga jéggal ko kuy yërëme ku nekk lu mu bëgg ku sàkku ci moom yërmande kon ñun ay jaam lañ yu soxla yàlla jéggal ñu yu soxla yàlla yërëm ñu te yàlla nee na inna allaha gafuru rahim man yàlla damay jéggale damay yërëme waaw yow mii da ngaa soxla ku la jéggal da ngaa soxla ku la yërëm nga gis ku la ne man man damay yërëme damay jéggale léegi lu des ku bëgg ku bëgg ku ko wéetali ak ku bëgg fu mu fanaan dégg leen wax bi kii dafa wéet ba bëgg ku ko wéetali kii amul fu mu fanaan tëjal bunt bi waru leen boole de ah dëgg dëgg tëjal bunt bi ñu tëdd waru leen boole ñoom ñaar yàlla nee na damay jéggale damay yërëme yow da ngaa fees dell ak i bàkkaar bëgg ku la yërëm ku la jéggal lu fi desati dul nga plongé rek ku ñu jéggal la yërëm la yàlla na yàlla yërëm jéggal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu jéggale njuum tey